maa ngi tudd soxna Maam ndaje mi ndaje ko waral moom jàmm la rek ak salaam ndax damaa yore mouvement ñu yàgg bëgg a liggéey te mësuñoo am benn buntu daal léegi nag loolu moo waraloon ndaje li mu mel ne seen diggante ak nga xam ne Pape Modou Fall moom mi nga xam ne moom mooy DG bu emploi moom da ngeen a fas yéene di tàllal ko loxo ngir mu jàppale leen rawatina jigéenu Touba. waaw Pape Modou Fall moom dañoo fas yéene jóg jàppale ko rawatina ñun jigéenu Touba ak jeunesse bi topp ci suñu ginnaaw ndax dañoo gis ne moom euh, moom la président wóolu te lim ko wóoloo tamit da koo matale ndax ki fi nekkoon mu bokk ak moom liggéey. doon nañ liggéey ba kooku suñu borom jeexal ab liggéeyam ki fi ki ko wuutu ñëwaat ne ko man yaa ma doy kon kooku ñàkk lu li président gis ci moom ñun loolu moo ñu neex ci moom. mu mel ni jigéen ñi Touba kon su ma déggee sa kàddu dañoo dañoo maanaam gisuñu woon seen bopp li jiitu Pape Modou Fall di ñëw mais bi Pape Modou ñëwee yéen ñoo jigéen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk fii ci Touba da gis seen bopp ci li nga xam ne moom moo di euh, Pape Modou Fall moo tax yéen sax yéen a jàppale waa jigéen Touba moom wax dëgg yàlla moom gisaguñu woon seen bopp moom waaye nag euh, Pape Modou Fall moom wax dëgg yàlla tax na jigéen ñi fi mu ne ñu ngi gis seen bopp bu baax a baax ndax mi ngi leen di jàppale ci lu mu tax na ba fi mu nekk nii jeunesse yu baree bare amatuñ jot ku ci xëy yaa ngi liggéey di wuti loo deex ay xaaraa ñoom ñëpp mi leen di jàppale ci li mu mën waaw. ban message ngay lancé jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk la nga xam ne moom moo di Pape bu baax jigéen ñi nekk Touba moom li ma ko wax rek moom nee naa ko di nga xam ne euh, jàppante nga koo xam ne nii doo ko réccu koo mënoon rek fi ne nii moom ginnaaw tàllal nga ma nga ma di nga xam ne nii nuyu nga ko mat a nuyu ci dëkk bi waaw dinañ ko jàppale te dina xam ne jàppale nañ ko. mu mel ne Touba nekk na dëkk boo xam ne bu naqaree nekk la ci wàllu politique Pape Modou Fall leen. tey euh, premier pas bi mooy lii nga dajale tey responsable kese maanaam toog doon def am ndaje parce que ne takkatoo àndandoo ngeen jàppale Pape Modou ba nga loo xam ne ni joxañ na ko rek koo da jàpp jàppale waa li tax moom mobilisé wu ma ay nit sax damaa woo responsable yi rek ngir bëgg jàppale Pape bu baax a baax ndax moom dañoo xam ne ci la nekk dëgg rek moo wóor loolu moo tax ñu taxaw tem pour jàppale ko dafa suñ jàppale ba moom tamit mu jàppale ñu ndax dafa am ñu nekk suñu ginnaaw te ñu nekk suñu ginnaaw dañoo yaakaar ndax ñi nekk sama ginnaaw wax dëgg yàlla ay góor lañ ay garmi lañ te lu ma nekk suuba te ngoon jot ña nga ca kon ñoom it dañ leen war a dimbali te ku leen jàppale ñoom it ñu jàppale la waaw ndax xale yi fi nekk nii bëgg nañ liggéey malgré que sax nag mu ngi leen di jàppale bu baax baax ñu ngi liggéey waaye nag ah mu gën a yokku daal waaw mu gën a doole jigéeni Touba yan jafe-jafe la ñuy jóge ci xam ne ne Touba amul koy wax gerte moo fi am ak yéen ak yéen ak dem ci palaat ci marché bi waaw jigéeni moom sonn nañ lool ci wàllu liggéey mu ñoom moom war nañ leen a gerte bu baax a baax ndax sonn nañ lool te la ngaa xam ne sonn nañ quatre di ma matin jot ba nga jóg ba dajeeg ñoom di ci mbedd mi wala digg bëccëg jot ba nga romb leen des fois sax da nga leen di yërëm surtout ci weeru koor rek gis naa loo xam ne nii doy na waar loolu yem na ma ci jigéen waaye sant yàlla rek waaw sant yàlla rek xam naa ne moom ku leen mu lu leen gën a dimbalee rek doyut pour ñu liggéey. fii moom ku ne ngi dugg Touba naan man la man la ndax loolu man xam naa ci dara ndax maa ngi jot ay message di jot ay appel waaye nag li tax man ma dem wutali Pape moom mu ñëw wutal si ma moom xam na ko waaw ndax ndax xëy na am na lu ma gis ci man man tamit xëy na am na lu ma gis ci moom di ko dégg ndax maa ngi gis ne mi ngi dimbalee bi isbu tarxiya yeeg yooyu ak li may liggéey ci entreprise yi wax dëgg yàlla di suqali entreprise yu ndaw yi euh, moom daal moom li ko président doon doon doyee lépp moom mi ngi ci incha allah fi mu nekk nii moom maa ngi fas yéene teg sama tànk moom bu baax bi daal fi mu ne ko fas yéene teg ci fu baax fi waaw déedéet baax ndax gisuma sama bopp te tamit samay xale gisuñu gi seen bopp waaye fi mu nekk nii moom maa ngi fas yéene jàkkaarloo ak Pape Modou Fall moom bëgg naa moom mu jàppale jeune marabout yi ndax man sama biir mouvement bi ak entreprise bi ñëpp a ngi ci ay jeunes maanaam bu ñu ngi ci waaw ñëpp a ngi ci kon tamit bëgg naa mu jàppale leen bu baax a baax a baax a baax ndax moom bu leen jàppalee tamit dinañ ko jàppale ndax ñoom tamit ñu ngi seen ay taal bi yor seen mbooloo wax dëgg yàlla xëy na ñoom mënuñoo wax am na lu ñuy bëgg a wax loo xam ne duñ ko mën a wax waaye nag ku leen jàppale man mën nga ko defal ku leen jàppale tamit dina baax te moom xam na li may wax ndax moom doomu daara la kon moom li may wax xam na ko seen maanaam bi nekk ci eh, maanaam région de Diourbel moom xam na li ci war ndax bëgg nañ ay tracteur ay machine u bayukaay ay niñ koy waxee engrais ay jiwu yooyu yëpp dañ ko war a am te am na ci xale yoo xam ne mënuñoo egg foofu daal waaw seen seen tànk mënagut a gudd ba egg foofu kon ñooñu tamit yoon na mu gestu leen te am na ci loo xam ne nii moom bu ci jokkoog man dina ci am lu ko leer waaw ñooñu tam bëgg naa mu jàppale leen te man incha allah dinaa dugg naa ci dinaa sol sama dàll taal sama oto fas na maa yéene gox goxaan yi moom daal dina xam ne instant yi moom nuyoo naa ko mata nuyool. waaw xanaa bëgg na ñu jàppale jigéen ñi Touba yi ndax tamit sonn nañ lool sonn nañ comme ni ko xale yi waxee ndaxte fi mu nekk nii politiciens yi bu ñu soxlaa dañuy ñëw utiliser woo ñu suñu paree tegaat ñu fee ci putal ba fàtte ñu ba soxlawaat ñu bëgg ñoo jëlaat xale yi nag fi mu ci la ñuy yow fi mu dana ne est-ce que lu ñu ma defoon nañ ma defoon deux mille dix neuf nañ ma defoon nangam xam nga loolu nag kon dèjà kay xamul lan la léegi ñu bëgg nag ñu fonk ñu ñu ñu fonk leen ndax ñun moom fonk Pape Modou Fall mënta ma gis ko démb ma wax ma ay itteem ma ñëw taxaw ci dagg samay soxla jóge Dakar ñëw ba Touba nekk ci ay itteem ko samay soxla man pareegul kon nag moom nag ko samay mbir itteel bu ko samay mbir itteelee rek man dina ma itteel waaw bu ko suñuy mbir bu ko itteelee man nag ñi ngi sama ginnaaw sooba yàlla moom moom dinañu itteel dinañ jaral jug sol suñu daal taal suñu oto fanaanee dox ci moom te xam na li ma ko wax ndax am na lu ma ko wax ci biiram te dama koy dëggal waaw. comme ni ko waxee léegi ci yenn ci jëmee ci mara yi nga xamante si ñoom dañ leen a cërale lu mel ni ay daara ak yooyu noonu ñu xalaat ko jëmale ci ñoom te ne xam na ni daara buñ ko waxee moom dafa laaj ab taxawaay bu mat sëkk. ndax lu mel ni waxuma non seulement yow mi fay nekk rek waaye gone yu ndaw yi ñu cay boolewaale loolu ab taxawaay la te loolu daa jëm ci liggéey bi mu woote kon nag duñ def lu lépp lu mu nekk rek ñu jàppale ko ca moom mi nga xamante suñu day suñu wayut di suñu lépp taxawaay bu ma tale bi mu amee jëma ci seen yi loolu nag dañ koy wax jëmale ci kàddu seen mara bi comme ni nga ko waxee léegi ñun ñoo leen fi teewal ndax xam nañ ci dara ndax ku nekk ci daara rek da nga ci ci mën a da mën a am firnde ci lii ñuy wax ndax fi daara toll ci jamono yi ku ne xam nañ laaj na ak taxaw ak jàppale ndax euh, seen euh, gano yi ñu fay indi ñu bëree bëree bëri daanaka seeni way jur yi duñ xalaat jëmale ñoom te loolu nag euh, mën nañu wax ni peut-être maanaam jamono moom mettee noonu léegi nag bu demee noonu nag te suñ xel duñ ko jëmale ci ñu ñi nga xamante ne am nañ moo tax ñu leen di woo ci liggéey bi jàppale leen ñu jàppale ñu ñu jàppale ndax adduna moom jàppalante kese la waaw kon nag ñu ngi sant soxna Mame Mbinde bu baax a baax a baax a baax ci jotaay bi ni ñu ci yaatale dugal suñu kàddu ndax lu mel nii nii dana tax maanaam suñu kàddu ñi nga xamante si ñooñ ci mën a dimbali. ndax loolu de liñ ci wax moom mooy ku ne Touba xam ni moom politique ni mu fi fonctionné des na bu baax a baax ndax côté religion bi moo tax ndax bu waxee Touba dañ ciy xalaat ñoom ab yar ak teggin ba tax na loolu. maanaam ñi nekk ci biti tey sumb liggéey yi nga xam ne ñoom ñoo war a am xelum loolu maanaam day liggéey bi day toll foo xamante si ni da ci am nit ñoo xamante si ni yow yaay yaay yaay doxal sa yitte bopp ba egg ñoom te loolu buñ ko waxee Touba da cee bokk ndax comme ni nga ko waxee yow mi nga xamante si yaay def question bi loolu xam nañu Touba noonu leen leen yare ci politique waaw maanaam naka jekk ñoom dañ leen daan dañ leen daan fekk si dimbale leen ndax daa am lu leen bàyyee te liñ leen bàyyee dafa ànd ak wax ju bari kon loolu ñoom ñoo ko war a xam seen matadi am seen matadi boobu xamaale waaw léegi nag kon ñu ngi ko ci woo bu baax a baax a baax di ko wax ni comme am na loo xam ne bu ko dee diglu ñoom rek xëy na seen kàddu dafa mën a jotale ndax politique Tuubaa dafa xaw a ndax am mbirum élection bi dim laaj dafa bëri daal laaj dafa bëri moo tax daanaka dañ koy dañ koy dañ koy sàkku ndimbal bu baax a baax baax rek comme niñ ko waxee woon sàng rek mu ñëw dimbale ñu ñun ñu mën koo dimbale waaw ndax euh, liñ naan dimbal da ca fekk loxol borom daal bu ci nekkee di ñuy jàppale daal am na ci am na ci loo xamante si ni moom dana dem ba teg ci bëtam waaw dana dem ba ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax ci liggéey boobu noonu lu mel ni daara yeeg yooyu noonu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax aadi woon nañ ko jamono yi ñu toll tey mu mel ne dañoo daje woon fii ci di waxtaan li nga xam moom moo di ngeen amaloon am ndaje ngir jëmale ko ci nga xam moo di Pape Modou yi nga xam ne ñu ngi koy ma koy wax mooy mu mel ne ay moroomam politiciens yi ndax politiciens yi mën naa ne ñoom ñëpp ñoo yem lax yi si koppam moo fi war a jeex lax yi na mais mm-hmm. jigéen yi dañoo sonn dañoo taayati lax yi kii koo si woo sa carte dañuy lànk dañ ne soxna si moom carte d' mënuñu ko jox na ndax yi dañoo bari benn bi mooy financement am nañ si problème formation yooyu ñuy wax ñu affaire saabu yi madaay yi yëpp ko si mënuñu am dëgg bi nag moom lañ am Touba Kelle man suñu tub dëkk maam bi moom lañ am dëgg na sax xaalis mu fi dugg waaye nag dégg rek lañ ci am waaye du yàgg ne dañuy defal toppatoo jigéen ñi wala jàppale jigéen ñi même campagne bu ñëwee dañuy woo nga ànd ak ñoom tàng tàng ba gudd jot du ñu da dara du dara ci seen bopp lañ koy yemale jigéen ña sonn nañ dañoo bëgg ñu jàppale suñu jigéen suñu dëkkandoo ñu jàppale leen ñu jàppale waaye nag ku ñu jàppale wu ñu jàppale yónnee suñu mbooloo yónnee suñu mbootaay suñu ginnaaw wax dëgg yàlla am na loo xamante ni moom moo tax kenn sawru si waatu Touba yi la am na loo xamante ni moom kenn du ko kenn du ko nanguti fenn te politiciens yi ñu defal war a bàyyi tey wax dëgg bi tey jàppale ni ñu jàpp waaye bu élection yi xasee bu ñëw ñu ñëpp jógal ba jàll ñu fàtte la du dëgg du du yoon. waaw moom moom PAM mun fa bu ñuy jàppale daal ñu jàppale ko moo ñu taalal loxo ñuy toog di ko déglu di ko seetaan na ñoom nag wax nag ñu mën a def mu jëf ñu gis waaye waxi kese moom waxuñu ko.